ñëw nañ fi ñii bi problème bi amee lañ profité bëggoon ñu ñëw yëkki bi problème bi amee ñoom bi ñu defee seeni business mu toj lañu ñu bëggoon ñëw yëkki ñu ñun xam nga mais après xam naa nag nee nañ ci kaw la jóge nit ñi dañ jóg nañ jóg nag mais état bi nag xam ne moom conséquences yi moom la du duñu benn nit duñu ñaari nit bëri nañ.

après immigré ni lañuy def gaay dem immigré baye len wax seen Sénégal ah. yile jéegu opération waa DSCOS ni ko nag tàmbali ci atum 2015 ba tay jilé mu di do doxalin ngir sam tay a lepp lu patrimoine ci réewum Sénégal. 2015 déjà on avait alerté on avait écrit on avait même provoqué à l'époque quand on était à l'urbanisme euh, dañu demoon sax bép créé lo se c'est c'était une commission chargée de veiller sur le phare des mamelles qui commission bo xamante wa urbanisme. directeur de cabinet urbanisme à l'époque moo ko jiite woon loolu lépp pour bañ li nga xamante ne mooy patrimoine xam ne dañ ko classé nekk njëriñu état du Sénégal nekk njëriñu askanu yëpp parce que phare bi mooy gidde bateau yi mooy gidde avion yi buñ ko laalee bi nga xamante ne euh, amatul njëriñ yaakaar naa pertement ñëpp la gis nga ne si barkaat ci démb ñetti ministre ñoo xool li nga xamante ne moom la fi doomu aadama def attaqué phare bi ak ay bulldozer commencé koo gas am na sax ñu ne xëy na loolu mën na ay volcan bi man du géologue mais euh, xam nañ ne Far moom toujours day nekk genre volcan euh, dormant ku ko yee aussi rek di nga indi jéey ci askan wi moo tax tey ñu teew fii indi suñu mooy yëpp pour li nga xamante ne mooy espace bi nekk diggante goudron bi ak Far bi ñu libéré ko désencombré ko nettoyer ko pour permettre ñi nga xamante ne seen mission mooy aménagement ñu mun ci accès defar ko ba ku fi romb sa xol neex yaxanal li dalee nag goudron bi ba ca faax bu ma mel doon na nag ab jéego ngir fa xas lépp li koy gàllankoor mu di ab jéego bu waa Wakaam daal di rafetlu. bi day gis fii nu toog dañu ñëw toog pour représenter Sénégal waaye représenter Wakaam gii nag wane ne waa Wakaam ànd nañ su lii suuf si niin kaa doxalee baaxul àggagunu si. parce que nun sax dañu woon ba nu féexee danoo jékki-jékki rek daal di yëngal waaye nag yëngal ku laa xeex da waxtaan boo waxtaanee boo d'accord nga xuloo boo xuloo boo d'accord lee nga xeex règlement bi moo la lii ñu def nii dañ doon yàqal Sénégal benn ka laa xam en dem si ginnaaw am na ay ay ay ya nek dan ginnaaw daan fi dindi ay xeer yogu no bombo dan daan rombax gali mais bogo téléphone duñu jegeñ fi mu nekk nii kambayang sa ginnaaw beneen affaire bi li xoos li ba yàggee dala wacce tunde wi est ce baxna baxul nanu defar nanu la jekal rew mi nanu ko la surveiller àndandoo fi war nañ xamne ne bu lañu def ba li mën sama am ngir lan sam li nga xamé moy patrimoine bi ku am far bi xamna ne képp ku dëkk fi yaro fi jaar nga fi def fi lu ne bu ñu ñëwee nag ñu occuper ko d'une manière abusif ba paré di wax ay bay yi fi génné di xoss far bi pour di ko def kër lolu wakam du ci te ñun jaral lepp waa DSCOS di sàkku nag ci askan wi ñuy signaler lépp luy xat-xat nag bi gàllankoor bépp zone bi nekk nag su haute surveillance bu waa DSCOS ngir nag gën di aar tey sàmm lépp luy patrimoine ci réewum Sénégal.